aywa dañuy eh, eh, aywa dañuy eh, dem léegi rek El Hadj Malick El Hadj Malick bu indee euh, yëglekaay yi dañuy tàmbalee ak euh, l'observateur l'observateur mu xëyee tey jii ci élection 23 euh, janvier 2022 les locales à l'arrêt loolu la ñu wax ministère de l'intérieur ñu ne mi déposé 11 recours ci cour suprême jaarale ko ci agent judiciaire de l'État mi ngi ci l'observateur kaawu Matam ak 5 dossiers coalition de parti yi bokk ci ku kuje gi l'observateur wax tamit ci benn jàngat wala beeg dossier les deux visages du président Macky Sall entre perception ak représentation observateur euh, victime de Arona Ba muy étudiant boobu ñuy tuumaal ni moo sàkk lu toll ci juróom fukki xale yu jigéen ñoom xa xale yu jigéen yooyu am na ñenn ci ñoom ñuy waxtaan li ñu dund l'observateur yaatal na ko euh, ci euh, biir page 7 bataille judiciaire bi muy coow li élection mi Sénégal ak plainte bi nga xam ne Amina Badiane jaarale ko ci ay avocat am déposé nañ ko tey jile ay soxna dem di déposer collectivement plainte lépp ci page 10 bu l'observateur l'observateur xëy national sénégalais bu Metz bi ñu ne confidence de Opanguette euh, ci blessure bi mu am ak avenir am euh, ci euh, tanière bi ñu jàll ci beneen mu di record record euh, Ligue des champions euh, cinquième journée City ak PSG choc de titan lañ ko tuddee ndaje bu am solo euh, ci première ngir première place bi Barça moom ñu ne mi ngi mettre en danger Cheikh Tidiane. <laughs> ñu ne choc du pétrole ah choc du pétrole. Ah, naari naari <laughs> voilà PSG xam nañu équipe bu Marseille la voilà le Barça se en danger avant le Bayern ñëw nañ tamit wax waa record ci match à domicile Iba Mar Diop dans son fief à la Médina. Medina dañuy dooraat di dajale di dalal match yi foofu foofule record ñëwit euh, ci euh, li ñu doon waxtaanee sànq muy équipe euh, malentendant yi gaynde yi nga xam ne président de la république daf leen dalal démb neexal leen ca palais présidentiel Yatma Diouk un ADN de buteur yooyu yëpp mi ngi ci biir record ngeen mën koo jënd léegi que ça soit record wala l'observateur muy ñaari journaux yi groupe Futur Média di édité ngeen mën koo jënd waxtu wi jot na wala sax passé na jeex na tàkk hmm. ay